salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte dalal fii kii di Abdoulaye Cissé Abdoulaye Cissé jeune républicain la di militer foofu ci parti Alliance pour la République dëkk Tivaouane nekk ci commune yu Mérina Dakhar muy conseil municipal euh, ñu ràññee ko ci taxawaayam foofu ci maire national mooy le mouvement des élèves étudiants républicains ngay jàngee université Cheikh Anta Diop de Dakar à la faculté de des sciences Euh, Ablaye ñu ngi lay jaajëfal di am mbégte dalal la fii à Sénégal pour la première fois. waaw euh, Kande maa ngi lay fay di nuyu képp koo xam ne mu seetaan Sénégal di nuyu sama mbokku républicain yëpp di nuyu waa Mérina Dakhar di nuyu waa Kell ak képp koo xam ne mu ngi dox si lu neex président Macky Sall. accord euh, récemment président de la République dajale na ay ponkalam. foofu ci permanence su alliance pour la république bu nekk Mermoz ngeen daal di lancer lii di vente des cartes ngeen di xaar ay adhésion yu bees président de la république fi jiite ndaje bu mel noonu déjà nax nga jàngatee lu mel noonu à quelques mois de 2024. waaw loolu dañ koy njëkk a jàngate rek mooy dañ koy rafetlu parce que euh, daje bu mel noonu bu amee solo noonu président de la république ñu xam ni mu jàppee mais bu bàyyi yitteem yépp ñëw ne man maa koy présider loolu dañ koy rafet rafetlu ñuy gën a rafetlu aussi taxawaay bi nga xam ne mooy responsable politique yi am nañ ko parce que ñoom ñëpp ku si amul empêchement rek yaa nga fa ndax solo bis bi waaye di rafetlu nag nga xam ni moom mooy le coordonnateur Abdoulaye Diagne coordonnateur du maire national li mu ko indee indi fa mbooloo mu takku wan ne président lépp loo xam ne président daf ko woote solo la moom donc solo bis bi ak dayoo bis bi moom moo tax ñu ànd ak moom ñun ñii ñëpp ñu nga fa woon pour teewlu li nga xam ni moom la président waxoonte woon ak ñun donc un million cinq cent mille kat lan war a jaay jaay bi nag dañ ko war a leeral mooy du question kenn rek day jël ay cartes jëndal ko boppam mais li président de la république wax leer na nañu jël carte yi dem si nit ñi fekk leen fu mu munti nekk si Sénégal waxtaan ak ñoom ba nu jëndal ko seen bopp donc loolu mooy solos ndaje bi donc ñun dañ koy rafetlu te di woo képp kuy responsable li nga xam ni moom la ko président de la république santaane ñu defee ko noonu te xam naa ne suñu coordonnateur Ablaye Diagne ci loolu lay nekk ñun ñi ànd ak moom ci loolu la ñuy wéy incha allah rabbi d'accord am na voix yu nee na na gars yi bàyyi di nax président de la république gars yi nañu wàcc ci zone bi mu xaw a daje tuuti ak li nga wax léegi mm-hmm. xanaa da jàpp ne kon comme carte bi yomb na cent franc lañ koy jaaye ci seen biir di nga gis ku jël vingt mille par exemple jënd ko carte yi dina ne ko man am na ñu jënd euh, euh, ay nit ñu toll noonu jënd yi ndax loolu jàpp ay pratiques yi mel noonu te mu mën a gàllankoor objectif boobu nga xam ne am ngeen ko ci seen parti waaw man de personnellement jàppuma ko donte am nañu ko jot am na ñu ma ñu bëree bëri ñu ma dégg ki yoroon microcentral bi du Mbaye Ndiaye mais am après Mbaye Ndiaye am na ku yoroon microcentral bi mu ngi wax lu demee noonu kon suñ ko waxee rek ça veut dire nañ ko gis wala jot nañ ko donc man li may woo responsable politique yi surtout ñi nga xam ne dañu am ay poste de responsabilité nu gën a jàppale la président de la république parce que liggéey bu rafet bi mu def ci Sénégal depuis bu mu fi ñëwee ci 2012 ba léegi yaakaar naa ne jaayal ko ay carte warul jafe donc ñun nañu jël suñu responsabilité am fulla am fayda bu ñu jëlee carte yi ñu dem xooli mbooloo mi jege ji askan ku si nekk ñu wax ko fàttali sax laay wax ndax li président de la république daf si réew mi saa su nekk ku yeewu di si ko gis di nga si teg sa tànk ñu fàttali leen loolu jaay leen carte ñu jënd ko si seen coobare bopp ñu ñëw li nga xam ne moom mooy ki nga war a jox xaalis boobu nga jox ko ñu wéy massifier parti bi waajal 2024 incha allah. ñuy xaar président Macky Sall peut-être choisir défunt bi mhm. ko mën a remplacer ci parti am en 2024 pour mu mën a wutali boppam pour mu ko benn bokk yaakaar particulièrement euh, APR mën a wéyal li nga xam ne yor bi mu yor nguur gi président si boppam jug di dem di jiite ndaje mel noonu est-ce que donc mënuñu yaakaar ni président bii ñu gis Macky Sall bii ñu gis mu ngi dem ci doxu troisième mandat. waaw xam nga li may leeral foofu rek mooy euh, président moomul boppam président pour man parti bi moom moo ko moom donc pour man wax ji tey. du ndax président day laaj troisième mandat wala déet wax ji tey mooy lan mooy ñun ñoo bëgg président de la république laaj troisième mandat gars yi dañuy wax troisième mandat mais bu buggee mille mandats man Abdoulaye si ak le coordonnateur Abdoulaye Diagne ak ñi nekk ci maire nationale bi yëpp duñ ko bañ ñun ñoo ko koy doxal waxul ko ko ba mu sotti ñu ñëw ñu ko président mbir maa ngi ni doxalal parce que li mu def ci Sénégal tey jàpp naa ne waruñu bàyyee Sénégal ay aventuriers. waruñu bàyyee Sénégal ak ay violeur ay kàcckat ak ñoo xam ne gëmuñu Sénégal seen intérêt crypto personnel moo leen yor kon yaakaar naa ne président de la république moomul boppam li nga xam ne moom mooy membre parti bi di bokk ci parti bi yépp dans l'unanimité gëm nañ ni président de la république dafa war a laaj troisième mandat kon président moomul boppam waa parti bi ñoo bëgg réew mi ñoo bëgg ndaw ñi mag ñi ak paa yi maire ñëpp a bëgg président d la république def troisième mandat en tout Sénégal donc ñi nga xam ne nag bëgguñu Sénégal nan def li leen neex mais ñun ñu bëgg Sénégal lu mu jaral ñooñ yaakaar naa ne war nañu jaral lu ko raw ñàkk ànd ak yéen ça signifie pas euh, bañ a bëgg Sénégal waaw ça ne pas bañ a bëgg Sénégal mais pour man ñun mun nu ànd ak ñun ndax yonente bi sax ñëpp ànd ñu woon ak moom ndax bu neexoon yàlla mu tibb sunguf wala mu wax loo ko baat rek ñëpp ànd ak moom ku si nekk ak ni mu ñëwee ba am na ñoo xam ne ñëwuñu mais ñun ñu nu gis parce que dafa bëri ay opposition mais opposition bi ëpp làmmiñ bi gën a bëri wax ñoo ñooñu bëgguñu Sénégal seen i intérêt moo leen tax a jóg ndax opposition boo xam ne du wax dëgg du dox si dëgg te ku nekk si dëgg ñu faagaagal wala ñu jéem la néewal doole kooku boo nee ma bëgg Sénégal man damay jàpp ni ñoom dañuy wax lu leen neex rek dèjà ñoom seen biir mënuñu juboo d' accord euh, troisième mandat nga wax jàpp nañ ne président pare na ñun la pour faire plus de deux mandats consécutifs loolu la ñu ci constitution bi wala wax jooju intéressé wu leen waaw wax jooju ak mu ñoo intéressé ndax boo demee sa référendum ba wax ji leer na ku mel ni Barthélemy Diaz tey bu leen neexee ngeen yóbbu ko baar li mu waxoon mooy man Barthélemy Diaz bu président de la république wootee troisième mandat du ma marche ma xeex du ma génn suñu kër ndax moom yabuma constitution kon Barthélemy Diaz moom si boppam dafa di sénégalais yi donc li mu xamoon mooy le président de la république mandat bi mu defoon mandat de sept la donc constitution bi balaa muy wax nul dafa wax le mandat est de cinq ans kon benn mandat sept ans boobu du si bokk ndax président de la république encore une fois moom moomul boppam bu doon mën naa wàññi. am na ay constitutionnaliste wax c'est le principe d'intangibilité de la constitution maanaam de rétrograder. Mhm. foofu ngeen ko teg. waaw xam nga bu doon rétrogradé kon mandat yi fi jaar yëpp. Mhm, da nga boole. Mhm. te loolu mënul nekk. le président de la république dama bëggoon a souligner benn point. mooy bu fekkoon mën nañ ko permettre mu wàññi kon bu ëllëgee ñu permettre keneen mu yokk mais bu mu bëggee wàññi mandat conseil constitutionnel dafa ñoo ni ko mënoo wàññi ndax moom moo mandat bi mandat bi nii lañ ko tëddale kon tu es obligé nga suivre loolu. ba jeexal ko hmm. kon président de la république mandat de sept ans boobu bokkul ci révision constitutionnelle bii. Hmm. day am kon ñaari mandat de cinq ans ñu koy woowee deuxième quinquennat te man sax damaa bëgg a clore nee naa leen ñaari mandat la ñuy wax deuxième quinquennat mais président de la fi mu jëlee Sénégal ak fi mu ko yóbbu bu bëggoon cent mandat man Abdoulaye Cissé ak ñi ma àndal ñu jàppale ko si ba xam fu wàn leen di mujjee ci bëtam d' accord gis nañu seen waa ji nga xam ne moo leen tere nelaw euh, kii di président Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu Pastef euh, dossier bii di dossier Adji Sarr yëkkati ko ñu bëri yaakaaroon ne quand même dina woowaat nit ñi ñu wàcc ci mbedd mi xeex wala sax gunge ko këram ba palais la république à la dernière minute mu ne toog leen seen kër du lu garaaw est-ce que yéen ngeen waajaloon dara bu génnoon keroog bu woowoon nit ñi ci mbedd waaw xam nga ñun nag ku nu xam-xam ni ñàkk ñu fayda ñun wax naa la sànq ni yàqkat lu mu leen jaral pour yàq ñun defarkat yi dinañu jaral lu ko raw pour defar te président de la république lu mu liggéey ci réew mi 2012 ba 2022 bu liggéey fi lu mucc ayib saa yoo xëyee gis wala nga teg sa tànk wala sa bët ci lu mu def chaque jour aussi muy jàppale sénégalais yi di xool seen i bëgg-bëgg mu siy dox di xool seen i tawat mu koy saafara kon du nu bàyyi ku mel ni Cheikhou Chérifou man du ma wax Ousmane Sonko Cheikhou Chérifou Sénégal laay wax mu ñëw ak i nitam ñoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge ak fu ñu jëm di di di yàq réew mi loolu duñ ko nangu te nag à chaque fois nag mu woote ñu nit woote nañ di ko xaar lu mu bëgg ñu bëgg lu ko raw bëggee jàmm ñu fekk ko si jàmm bu bëggee coow it ñu ko si coow ndax ñun moom ragalul li ñuy def te ku ànd ak président Macky Sall it munoo ragal. jàpp ne yéen dafa war a dem procès wala dafa war a jàmmaarloo ak Adji Sarr wala yéen lan ngeen koy xaar parce que nee na dèjà moom du def test ADN loolu xaw a plombé tuuti processus bi est-ce que jàpp ngeen ne ADN boobu noonu dañ ko yëkkati pour leeral dossier bi wala da ngeen jàpp ne bon munoon na jàpp loolu dèjà la mooy sa point de vue ci ci ci lu demee noonu. waaw xam nga Ousmane Sonko moomul boppam fi mu toll problème la boo xam ne mu ngi su loxo justice. Mhm. te juge bi lépp lu mu xam ne bu ko defee dëgg am ndax askan wee ko laaj dëgg. Mhm. lépp loo xam ne bu ko defee dëgg day feeñ da koy def. dégg naa démb ko mel ne Serigne Bara Ndiaye nga xam ne du wax lu mu xamul mu ne mosul gis si àdduna bi. du wax fu ni waaw du wax lu mu xam fu ñuy gis si àdduna bi fu ñuy waxee test ADN pour pour prouver ay viol ak yooyu. te vingt quatre ans après. France am na fa exemple bu ñu ko jox VAR yóbbu ko VAR 24 ans am na ndaw su dee après 24 ans ñu def test ADN pour génne dëgg kon juge bi lépp loo xam ne moyen la bu mën a mettre à sa disposition pour mën a kii kon yaakaar naa ne juge bi am na droit ne Ousmane Sonko defal test ADN bu ko deful nag dañ koy jàpp ni comme moom dafa coupable parce que nag bu dee deful lu mu si bañ Ousmane saay-saay la d'accord euh, nga nekk maire national temps mu xaw a bëri lool. ñii di jaar gauche ñii jaar droite ñii jàpp ne Ablaye Diagne dafa war a quitter le maire national parce que mënu ko combiner ak poste bii di députation euh, mu doon coow loo xam ne kam commencé na am ay yenn proportion yi xaw a garaaw biir parti bii di APR euh, nga nekk membre qu'est-ce quel est ton avis sur ça que tu perçois situation bu mel noonu. waaw Doudou Ndeye li ñu njëkk a def mooy masawu Ablaye Diagne ndax jàmbaar la. yaatu dënd loolu yaatu ginnaaw lool te ñii jug tey di wax ni maire meer meer ay maire ak nangam man du ma leen tudd sax parce que ay jumboor yi laa leen woowee ñoo xam ne xamuñu fu ñu jugee bokkuñu sax ci parti bi. Hmm. y a de cela quelques mois ñoom ki leen jiite taxaw ne moom mu ne il est apolitique voire baa ngi fi donc même pas huit mois. nga ñëwaat nga ni da ngaa bokk maire bay jiite meer la yaakaar naa ni kooku danoo yab yabul laay Diagne ñun la yab mais nag loolu li ko waral nag mooy liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la coordonnateur Ablaye Diagne def si maire national ba mu comme ba mu suscité convoitise waaw ndax da dafa def liggéey bu rafet rafet ba opposition bi laal wax yi nekk ci université yi nangul ni Ablaye Diagne jàmbaar la mu ngi guddil étudiants yi di leen bëccëgal di yóbbu seen i doléance si table président de la république man mii personnellement fekkee naa ay doléance yoo xam ni envoyé na ko directement par vingt huit ak vingt neuf décembre passé bu deux mille vingt et un am na benn lël bu ñu defoon hôtel teeru bi lépp luy yi université dañ ko dëxañ ci ay euh, li ñuy woowee ci benn livre université publique yëpp ngi ci woon ak université virtuelle problème bu université yëpp mu jël ko yóbbu ko président de la république moo tax keroog bi ngeen gisee président dem visite Saint-Louis bi bataaxal boobu étudiants yi yóbbu woon jox ko président de la république boobu ñun ñoo ko toggoon te ci ndimbalul Ablaye Diagne la jaare kon liggéey bu rafet boobu taxawaay bu mu taxawaayu étudiant bi moo tax ñi nga xam ne seen i intérêt ak bëggub xaalis jàpp ne maire dafa amul xaalis moo tax ay trians yoo xam ne kenn xamul fu nu bokk tekkiwul dara université ñëw naan Ablaye Diagne mais Ablaye Diagne bu mu tontu ndax du seen moroom am na ñu ko tontul ñooñu maanaam ay aventurier la ñu si baree bari sax ay opposant la bari ci démb gis nga bu ñu ñëwee siège bi mënuñoo dugg bay Ndiaye bi nga xam ne ndeysaan jàmm la bëgg bi mu ñëwee ba yem si ñoom bi ne ko ñii ay élément somb la dafa wane ginnaaw bàyyi leen fa li leen ñor mooy caaxaan comment nan la président de la république mën a ñëwee si ndaje ñu wax vingt quatre yow nga ñëw photo rek pour am ay image demande ñibbi woo la président wax xamoo lu président digle la mu santaane sa yoon nekku sa jàpp ni nit ñi mën nga leen a nax si ay caaxaan ak i kàcc kon gars yi nanu yeewu maire national tey ko joxoon ku mel ni Matar Diassé can du kaas ndax dina guddil président dina ko ba bu buñ ko joxoon Idrissa Ndiaye ñu koy woo Rio kenn du kaas Adama Diouf kenn du kaas Medza kenn du kaas Mansour Sow kenn du kaas man mii keneen ak keneen kenn du kaas mais kenn koo xam ni kenn xamul fu mu jógee jékki-jékki rek wàcc ci géew bi am ñu koy jàppale ñooñu dañuy nax président de la république pour man président dafa war a sanctionner ñu koy jàppale parce que du dëgg du yoon golo du bay baabun du dundee ñooñu nañ leen wax dëgg te université moomuñu ko amuñu ko dara amuñu ko baax ay ay doxandéem kese la. daal Ablaye Diagne moom ndax la jàngate situation bi moom. waaw ndax dafay dundee quoi. Ablaye Diagne nit ku am fulla la boobu ba léegi mën naa ni directement ni waxu si àddu si dañu na bàyyi gars yi ñu doxal. maire national dynamique bu mu nekkoon parce que bureau bi structuré la ñu ngi koy continuer di doxal ñu ngi def suñuy activité ñu ngi def suñuy door a ticket bu leneen jotee dinañ ko def ba keroog le président de la république di renouveler mais fii amagul kenn mooy suñu coordonnateur mooy le l'honorable Abdoulaye Diagne du député de la jeunesse l'espoir de la jeunesse ñun moom lan xam parce que ba muy métti moonu taxaw ba ñuy métti étudiants yi moom lañ gis muy étudiant pouvoir muy étudiant opposition kon ay xale yu ndaw bëgg nguur yaree ko du ñëw di ko déstabiliser mënuñu ko sax tuuti lan si hmm. te nag dama bëgg nit ñi di gore fàttaliku démb parce que ñi fa nekk ñëpp am na fu Ablaye Diagne jaar ak ñoom te nag ku dul fàttaliku démb doo gor kon nguur jarul yenn yi te buntu nag wala kër astafurla boo koy jaar da ngay jaar sa buntu ko mais boo jaaree feneen daf la la neex ay duma nga si jële hmm. maire national souvent dañ leen di tudd ci ci ci ci ci taxawu président Macky Sall bouclier président Macky Sall dynamisme boobu nga xam ne dem na ba créer na certaine opposition entre ak COSER Euh, qu'est-ce qui ne va pas entre vous et la waaw COJER comme ñun li ñuy wax COJER ay jeunes ñoo fa nekk maire ay jeunes ñoo fa nekk waaye lee dafa nekk élèves ak étudiants bële nekk képp kuy jeune waaye nag kuy gis wala kuy wàcc terrain bi xam nga ni maire du moroomu COJER ndax engagement ak détermination ak loyauté membre ya fa nekk dañuy wax dëgg rek ñun ñëpp ñoo bokk parti bi nag. ñun ñëpp ñoo bokk lu nu bëgg mooy jàppale le président de la république waaye liggéey ba sa Ablaye Diagne def taxawaay ba may taxawaa ba muy taxawoo askanam ak ñi ko wër noo amul waxuma la Cosier de waaye amul benn responsable politique bu koy def ci APR wala ci Benno Bokk Yaakaar dafa jege ñi ko wër hmm. loolu moo tax lu mu bëgg ñu bëgg la lu mu bañit ñu bañ la ko gis nga keroog bu président de la république ñëwee daf ko jaajëfal ci kanamu mbooloo mi yëpp ndaxte foo tourné Ablaye Diagne Ablaye Diagne da ngay yaakaar ne sax Ablaye Diagne dafa yor ay poste de responsabilité yu bari. Mhm. waaye dafa mën a sacrifié wu. lu mu yor bokk kooku mbooloo bi bokk kooku askanam ku taxaw ku feebar mu taxaw la ku xewle mu taxaw la donc loolu mooy leader loolu laay woo responsable politique Benno Bokk Yaakaar yépp yu APR yépp ñu rey ci Ablaye Diagne ak yeneen jeunes responsables yi nga xam ñoom mel ni ñoom ñu liggéey le président de la république 2024 ñu joxaat ko nguur gi mu doxal ba horizon 2035 merci beaucoup lan waaw maa ngi maa ngi leen di jaajëfal waa Sénégal di la jaajëfal Kande si nga xam ni cadre bi ngeen xam ne jox ngeen ñu ko pour ñu exprimer wu. wax sénégalais yi li nga xam ne moom mooy dëgg waaye maire national fi may tëjee mooy mosul yëngatu. ndaxte ay xale yu ndaw donc ñoo nekk fële di tëb di dal te ñooñu duñ seen borom coordinateur du seen borom donc ñun dynamique bi ñu nekk ñu ngi si <laughs> di liggéey le ah. président de la république ñu continuer bu renouvellement jotee ñu renouveler incha allah kon jox coordination bi ñëpp ànd ak moom parce que pour man loolu ce n'est pas le plus important le plus important c'est de soutenir le président le président de la république waaw d'accord merci beaucoup mbokk internet yi ñooy doon dalal fii kii di Abdoulaye Cissé comme ni ñu ko waxee ci njëlbeen de responsable politique la foofu ci APR mu nekk jeune bu dynamique yàlla defaral ko jàmm defaral leen jàmm ba beneen yoon ak beneen invité fii ci senego point com jërë ngeen jëf